الإله

salaamaaleykum eh, ñu ngi leen di mbokk yi nii bàyyi xel saa su ne ci li nga xam si ne mooy li ñu doon xaar ñëpp muy le grand ziar général eh, fondation ànd jëfal Serigne Saliou ñu war koo amal nag tey jii yemook dimanche eh, le 13 juin 2021 fii ci kër Serigne Saliou ñu ngi nekk suñu ginnaaw ñu war a ziar nag Serigne Cheikh mu Serigne Saliou. Euh, tey nag moo tax tey ñu fas yéene àndandoo ak yéen ci événement bi euh, ba keroog ñuy gis sëñ bi ba keroog ñuy yeewi mbooloo mi ñëpp dem ñii nag nekk suñu ginnaaw ànd ak ñun ci li waa ànd ci communication internationale bi euh, xam naa ñoom tamit danañ leen jox kàddu di sant bu baax nag ñi nga xam si ne ñooy waa cellule communication internationale xam naa ni def rek mooy jox leen kàddu kàddu gi en tant que jëwriñ international dañ doon tijji rek waaye liggéey bu bëri ñoom ñi nga xam si ne ñoo nekk suñu ginnaaw ñoo ko yor donc dinañ dikk ak ci programme bi dikk ak yéen ci li nga xam si ne ñoo war a ziar si tey mbooloo mi nga xam si ne war nañ ñëw waaye itam xam naa ne programme bi itam danañ ci dikk incha allah jërëjëf euh, jëriñ Serigne Abdou Lahad ñu ngi lay nuyu baax baax te di la ziar te di di ko ñaanal yàgg fi la ci noonu nag la ñuy ñaanal Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mu Serigne Saliou mi nga xam ne tey moo war a ñoom fii ab dajee ci waa fondation ànd jëfal Serigne Saliou seen liggéey bi nga xam ne ñu ko doon waaj fan yii yëpp eh, bi nga xam ne moo di cellule communication internationale ci sunu jëwri Abdou Lahad waaye nag ci noonu la ñuy mbooleem communication boo xam ne yaa ngi ci biir fee dajee ku ci mel ne waa culture ñu ngi ci biir di jàng alxuraan ak xasida ndax noonu lañ ko xamee woon ndaje murit saa buñ toogee liñ la si ndaje ma mooy alxuraan ak a baax tàmbaloo lañ ko sax lu ngi ci biir ci liggéey bu am solo waaye nag fi ngi tollagum nii yaakaar naa ne am na ci ay jeunes ci yenn roto yi ñi ngi agsi xam naa nag euh, euh, fi nga xam na yaakaar naa nit ñi gisagu nañ leen ndax li ma gisagum nii mu wàcc rek ah, man na sax dama ko bindagul waaye xam naa ne am na kenn sunu sunu élément bu dikkee danañu leeral yenn zone ñoo fi accès gum ak bi xam naa ne ci noonu laa jox ki nga xam ne moo di Serigne Ahmadou Mboup mooy mu ñëw ah, ah, daal di nuyoo daal di ziar ndax mi ngi ànd ak waa zone bu Dakar kon Serigne Ahmadou bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah waa internet yi ñu ngi leen di ziar bu baax di santaat bu wér rek ginnaaw suñu bis bi ñu doon xaar muy le 13 juin ñu ziar fondation ànd nekk si bundu kër Serigne Saliou ànd ak waa cellule de communication internationale bi yëpp si njiit Serigne Abdou Ahad Jonn kon ni mu ko waxee rek ak Serigne Saliou imam waa cellule de communication taxaw noonu si côté yëpp ngir lépp li nga xamante si bis bi am na fi rek ñu wane leen ko ngeen gis ko incha allah rabbi si kanam tuuti dinañ ñëw wan leen lu fi am interview jëwriñ yi ànd tamit dem ak yéen wan leen tamit ziar ba ak lépp incha allah rabbi jërë ngeen Serigne Cheikh Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te ak mbooleem njabootu Serigne Saliou bi waaw ginnaaw ci ban leen ziare comme ni ko sunu jëwriñu defee rek digtal leen li fi xam ne mooy xew-xew bi ak li ñu fi dajale tey muy ziare général bi xam ne waa ànd jëfal Serigne Saliou ñoo ko booloo ngir indi liggéey bi xam ne liggéey nañ ko su at fas yéene koo jébbal Serigne Cheikh ci loolu itam daara ji dafa am ay zone yu fasantikoo ci biir réew mi ak itam ci bitim réew ci biir réew mi itam su suba ba léegi ñu ngi gis ni zone yaa ngi teew fii ci ziar bi lu ci moon di ci mel ni zone Dakar ñëw na zone Mbour ñëw na zone Thiès ñëw na ak zone Louga zone Kaolack ak zone Ngay Maam Baal la su ko defee itam dinañ bàyyi soxna Mame Saye Diop mu daal di indi zone yi xam ne ñoo des ci ziar bi. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki fondation ànd jëfa Serigne Saliou waaye mbokk àdduna bi yëpp ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax te di leen màggal waa di leen jox seen wàccuwaay di sant bu baax di gërëm suñu jëwriñ ñi xam ne ànd nañu ñoom liggéey bi ku ci mel ni jëwriñ Abdou Lahat si cellule de communication internationale ak ñoom Serigne Sali Imam ak euh, Serigne Abdou Amadou Mboup naka noonu nag euh, ñi ngi jaajëfal képp koo xam ne jaar na fi ci membre yu cellule de communication ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waaye nag ñi ngi indi journée xam ni jotaguñoo teew waaye léegi ñu teew bu ci mel ni zone Diogo zone Diourbel ak zone euh, euh, Richard Toll jàpp nañ zone yooyu daal ñoo teewagul waaye ñu ngi leen di xaar incha allah rabbi léegi ñu ñëw teew fi incha allah. jërëjëfati Serigne Saliou jëfaat Serigne Saliou ñi ngi ziare waa fondation ànd jëfal Serigne Saliou yëpp tey nag ñuy amal ziar bu mag fii ci kër Serigne Saliou gi. ñu war a fas yéene ziar ki nga xam ne mooy dëgg-dëgg Serigne Saliou muy sëñ Cheikh Saliou mu mel ne euh, daanaka xaaju. Euh, fondation bi yëpp ñëw nañ waaye ku ci mel ni waa zone Europe ñoom ñi mënuñoo ñëw mais ñi ngi amal ziar bi foofu noonu nga xam ni ñi ngi koy àndee ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal waaye ñi ngi sant ñi nga xam ne mooy waa communication international ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def tey jii ci ziar général fondation ànd jëfal Serigne Saliou ñi ngi ziare mbokk taalibe yëpp di ñaan rek ñu àggale ci jàmm ak salaam ci barke Serigne Saliou Amen asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nduyu mbokk taalib bi yëpp di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax man la soxna may ñu gën maa xam ci bàjjen may di jawrin universel yu soxna yi waaw ñu ngi leen di ziar bu baax a baax waaw sant sant yàlla rek santaat yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi di sant Serigne Touba Serigne Saliou ñu ngi leen ñu ngi koy sant bu baax a baax ci bis bi bi nga xamee ne agsi nañ ci ci jàmm ak salaam ñu ngi ciy sant bu baax a baax di ci am mbégte ndax tamit mbokk taalibe yi mobilisé wu nañ ñëw nañ ñi ngi wane seen yéene ci liggéey bi macha ndax mbokk taalibe yi ci whatsapp bi la ñuy déggantee kon bu ñu gisantee mbégte bu kawee kawe rek la ñuy am mënuñoo fësal lenn lu dul mbégte mbégte bu kawe kawe lañ am wax dëgg yàlla. waaw bisu tey bi rek soññee la kenn ku nekk rek tey boo ci jógee war ngaa gën a takkaat say laxasaay war ngaa gën a xam ne liggéey bi du caaxaan war ngaa gën a xam ne fii liggéeyal sëriñ Saliou rek mooy sunu yitte nii nga xam ne noonu nañ mobiliser woo ñëw ànd bokk lépp di doxal bis bi même bu fekkee ni ziar amul noonu nañ war a doxalee ndax liggéey bi amul taxaw kon dama leen ci soññaan ñoom ñëpp muy soxna yi di góor yàlla yi ñu gën a xam nag lan mooy liggéeyal Serigne Saliou rek bi ci dox saa su nekk macha allah Badiane ñu ngi leen di delloowaat ziar bu baax a baax. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax waa cellule de communication internationale ñun nag ñun la soxna Fatima Saliou di jëwriñu soxna ànd jëfal Serigne Saliou ba ca Mbour di itam jëwrinu communica euh, commission sociale te di wax tamit jërëjëfat Serigne Saliou ndax ñun loolu rek lañ am. ñun Serigne Saliou dañ koy liggéeyal di ko sant moo tax ñuy faral di wax naan jërëjëfat Serigne Saliou di la liggéeyal di la sant ndax kat ziar bi tey dañ ka waaj ci daanaka ban ko dooree ca di février 2020 ba léegi ñu ngi waaj ziar bi ndax kat ba ñu yeggee ñett yi leen digganteeg Serigne Cheikh ne ko kat Mbàkke ñun dañoo fas yéene ànd ak yow ci liggéeyu Serigne Saliou bi ne ko ñëwaat itam ne ko danoo fas yéene ànd ak yow ci liggéeyu tool bi ñëwaat itam ne ko danoo fas yéene ànd ak yow ci liggéeyu ndongo yi kon mu doon ñett yoo xam ne ànd jëfal Serigne Saliou jël na ko fas yéene ko ànd ak Serigne Cheikh mu Serigne tey nag mbooloo mi xam ne jóge nañ Mbuur nekkul ni bis bi waaj nañ ko ci kii déedéet ndaxte ku nekk umpalewul ni ziar bi waajoon nañ ko ak affaire pandémie beeg yooyu tax ñu annulé ko boobu ba léegi nag waa zone Mbuur jóguñu si di ko waaj di def ay ay rencontre yu tudd waajal ziar di dem ci ay télé di def ay vidéo di soññ mbokk taalibe yi ba tey mbooloo mu takku daal di ne jóge Mbuur ànd ñun ñëpp daal di ñëw fii ci ziar bi ngir mottali suñu yéen te ku nekk xam na ne mbokk taalibe yi surtout ma soxna yi ñu wàññi kàddu yi te xam ni ñun war ñoo jàkkaarlu jeeg sëriñ Cheikh déedéet ñun Serigne Saliou la ñuy jàkkaarlu ji ndax sëriñ Cheikh yi sëriñ Saliou te sëriñ Saliou yi sëriñ Cheikh te bu ñu demee foofu war nañ faa wane yar gu mat sëkk war faa wane tegg du mat sëkk te sëriñ Saliou sëriñ Cheikh ci loolu rek la nekk te sëriñ Saliou tamit ci loolu képp la yar ndongami te loolu ci la ñu yar ñun ñii di woote ay saalihaat ba ci loolu itam maa ngi soññu mbokk taalib bi yëpp bu ñu yeggee ci kanamu sëriñ Cheikh ñu ànd ak dal ànd ak tey ba sëriñ bi ñu daal di déglu soññ yim ñu war a soññ ak ñaan gi ñu war a ñaan kon nañ taquwaat bu baax a baax a baax a baax nañ gën a nekkaat ci liggéey bi gën koo seetlal lépp dina baax te ànd jëf sëriñ Saliou dañ ko dégg fu kawe suñu njort ci barkeb sëriñ Saliou jërëjëf. macha allah jërëjëf. alhamdulilah mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim jërëjëf maam borom Touba jërëjëf sëñ Saliou Mbacke jërëjëf sëñ Cheikh man maay soxna Adama Seck. ñu di ko wooye jëwriñ yaay aada ca zone de Dakar doon jëwriñu soxna yi fondation di jëfal sëñ Saaliw ca Dakar ah nekkee di yaayi daara ndax góor yàlla it maay seen yaay macha allah waaw waaw man yaay ñëpp macha allah. nan la demee ba yegg ah, mooy waajtaay rek woo xam ne nii da dem ca sang ñun sëñ Saliou rek lañu bëgg moo ne suñu xol di ci dund tey jii sëñ Cheikh Saliou mooy sëñ Saliou fii kon bu ñu ñëwee di ko ziyaara mel na ni ñun comme tey sëñ Saliou la ñuy loo nag lu rëy la ci ñun lu màgg la ci ñun ah en tant que taalibe murit ah daal di bëgg sëñ Saliou rek ba jeex kon macha allah boobu ba léegi nag ay weeri weer ñu ngi koy waaj. ci lan ci ànd ak yar ak teggin dooni taalibe murit rek tegu ci yoon wi dégg dégg ndigal bàyyi tere ci loolu rek lañu tënku booba ba léegi ñu di ci waxtaan di ci soññante ba tubaar fa kàlla yaakaar naa ne fi ñu toll nii kenn ku ci nekk waajal nga sa bopp pour lépp loo xam ne rek ne dañ koy bañ ci yoonu murit yow nekkul ci yow ak yàlla lañ fi indi ak it ak taalibe gu matale goo xamee ne dañoo fas yéene jàkkaarloo suñu sëriñ tey sëñ Cheikh Saliou Mbacké yal na fi yàgg lool Mbacké Balla te ànd ak wér ak sutura ak xéewal yal nañu yàgg jiite Mbacké Balla macha allah moom mooy sëñ Saliou sëñ Saliou mooy sëñ Touba macha allah kon tey jii am nañ mbégte bu rëy teew fii ci Touba ci ziar waaw mu mel ni ay waxtu rek dinañ dem fas yéene yaakaar ñu teg solution ñu fas yéene ñu bëgg a xam rek lan lan ngeen soññ suñ soxla yi ngir képp daal koy matale bu ñu taxawee li ci jiitu mooy col gi macha allah Dakar gis nga tey ni ñu ñëwee macha allah si yiw la ñu ñëwee donc euh, lépp dafa jot dara feeñul ci suñu benn cër comme ni ko jigéen jigéenu jullit war a mel jigéenu murit war koo mel soxna murit war koo mel noonu la ñu yëgsee ba pare boole teey ak tekk ak it joxe teggin ak joxe bi yar ba mu mat sëkk loolu daal la ñu ñëwee noonu la ñu yebe suñu bopp noonu la ñu yëgsee Tuubaa te incha allah bu nu ñibbeewaatee ci noonu la ñu fas yéenee tënku ndax loolu mooy li nga xam ne ni suñu sang ba bu dellu si waatoon bu ñu fekkee nii mu kontaan ci loolu rek bëgg a sax. waaw yaa Adama ñu bëgg rek lenn loo xam ne da koy soññee loo xam ne bu ñu ci lii. ci loolu la war a dem. ndax bu ñu jugee ci ziar bi kat dañoo war a delluwaat ci suñuy zone daal di liggéey. Mm-hmm. mu doon benn appel boo xam ne yaa ngi koy def mbokku taalibe yëpp rawatina waa dugg Serigne Sall mm-hmm. waaw li may wax de mooy yar ak teggin ak ni ñu waajale bés bii tey ba kenn ku ci nekk tegu ci yoon wi na nañu continuer noonu rek ci yar ak teggin ak ak taalibe bu mat sëkk ndax loolu rek moo nuy jariñ tey ak ëllëg waaw liggéey maam Saliou bi daal ku ci bëgg a jariñ da tege ci yoon wi li ñuy bañ nga bàyyi ko li ñuy santaane nga nekk ci yaa ngi dégg wëlbatiku nag doonub taalibe la ca jiitu mooy nangoo joxe addiya ak nangoo jëf ndax it loolu mooy li nga xam ne ni moom du wàccab taalibe ndax addiya li muy def ci ñun dafa bari tey ak ëllëg li mu ñuy jariñ tey ak ëllëg dafa bari kon bu ñu denc dara nañu xam ne ñun lu ñu am sëñ Saaliw moo ko moom sëñ Saaliw mooy sëñ tuubaa koo yaakaar tey ak ëllëg te koo waroo koo dencal dara te la mu xam ne nii moom la bëggoon ba mu ba mu fi nekkee ba ñibbi àjjana kon yow ci loolu rek nga war a sax ba yow fi nga fekk ko fa mën laa ram mu mën laa jàlle loolu daal mooy li nga xam ne nii mooy bu buñ fi jógee ñun ñëpp nan tënk ci loolu rek muy góor yàlla di yaay faal ñun ñëpp rek nan ànd ak li nga xam ne nii mooy ak murite rek ñu dund noonu ba añ bi àll ba ba ñibbi euh, sunu borom yàlla na yeex fekk fa sunu sang yi macha allah. asalaamualeykum wa rahmatulah jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfaat Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou di santaat Serigne Touba Cheikhul Khadim ci booloo gim ñu boolewaat fii man la soxna Kumba Saa bàjjenu Serigne Saliou. bu fondation ànd jëfal Serigne Saliou maa ngi lay ziar soxna Fatima Saliou macha allah kontaan rek sant yàlla ndax kat liñ doon ñaan mooy ànd nan la ñuy liggéeyale sëriñ bi naka la ñuy wut bunt bu ñu liggéeyale sëriñ bi far ñu boole ñoo jëmm yu mel ni yéen ñu fas yéenee liggéeyal sëriñ bi ci yoonam wii tey ñu ne dañoo ñëw ziar si sëriñ Cheikh mu sëriñ saaliw mu mel ni tey mbég feeñ na fi ndax mbokk taalibe yi musul gisante yëpp gisante nañu yiw gi am na fi sell gi am na fi te ñuy ñaan ci barkeb Serigne Saliou képp ku nga xamante ne ñëw nga fii fondation ànd jëfal Serigne Saliou nga jële fi yiw jële fi njariñ jële fi lu nga xamante ni tey boo delluwaatee sa zone dox woo doon doxe benn di ko dox doxin wu ko raw ndax kat liggéeyal sëriñ bi lañu woote te liggéey dafa àndut ak caaxaan ànd jëf ak sëriñ ngir sëriñ Saliou kon bu ñuy jëf kàddu jëf ji da cee war a feeñ nanu xam ne fondation ànd jëfal sëriñ Saliou sëriñ Saliou lay liggéeyal te sëriñ Cheikh mii fi nekk mooy sëriñ Saliou nanu nekk ci ndigalam yi ndigal yi kat moo di jumaam mi toolam yi ak santaane sëriñ bi kon dañuy sant sëriñ Saliou di ñaan ci barkeb sëriñ Saliou yàlla nam ci sax ba aw ci ba xadim dañuy tënk rek ngir bañ a guddal jërëjëfati sëriñ Saliou. soxna si ñoo ngi lay nuyu di la ziar di wane suñu ak kontante ñun ñooy jëru ma tudd soxna Naar Mara di kontaan ci fi sëñ Saliou fas yéene ko liggéeyal te liggéey bi ñu jëm nii dañ cee am kontaan am ci mbégte parce que na liggéeyal sëñ Saaliw yomb yombul te ñun bañ duggee sëñ Saaliw ba tey bu ñu xamee sëñ Saaliw si la suñu lépp yokkoo ndam rek lañ ci gis mais gisuñu ci dara lu dul ndam di la xamal ne euh, waa Jurbel fondation ànd jëfal sëñ Saaliw bi soxna yu bari ñoo ngi si liggéey bi si ñi nga gis nga gisut di wax ni ñoo ngi sant bu wér parce que sëñ Cheikh mooy sëñ Saliou te buñ gisut sëñ Saliou si zahir ñoo ngi koy gis si baatin te kontaan nañ parce que wax ji damay bañ mu gudd parce que ñeneen ak ñeneen ñoo ngi ñëw bëgg mais war nañ ne daal ñoo ngi sant rek sant rek lañ amuñu lenn du sant sëñ Saliou wér ak lépp lu ñu defal sëñ Saliou nag du amul dara luñ ci teg suñu bët ndax sëñ Saliou li mu defal jaam ñi moo ëpp doole lépp lu si biir àdduna kon ñun mënuñoo defar dara sëñ Saliou lu ñu teg suñu bët lu ñu def rek dafa mel ne taq ndeer la ñun pour ñun defal defalaguñ dara sëñ Saliou parce que li ñu defal ñun moo ko ëpp fop di la wax ne mbégte rek lañ ci am mbégte mu wér mbég loolu mbég bu baax a baax a baax. na leen ñu leen daloo ziar bu baax a baax ñun la man la soxna Ngoné Faye jawriñu zone Louga. waa ñu teewoon tey ci ziar général bi nga xamante ni maanaam ñëpp fi teew ñun waa fondation And Jëfal Serigne Saliou ñoo fi tey am ànd seeg mbégte mu yaato yaatu waaw di kontaan rek si bés bi ak tax nii ko nit ñi taxawoo nii ñëpp bokk ndey bokk baay rek kontaante loo daal. macha allah soxna Ngoné mu mel ni suñ mbokk soxna yi ñu ngi nii toog ñii di jàng xasida waaye ñii a ngi servi ñeneen ñi tamit ñi ngi si cuisine ba mu mel ni yow jëwriñu soxna yi nga waaye tamit yaa ngi cuisine naka nga dundee mbégte mi tey jii. waa mbégte mi moom ma la koy wax sax dëgg yàlla du ma xam sax fi may tàmbalee ak fu may yam parce que mbégte mu yaatoo yaatu laa si am ndax lii lu ma yàkkamti woon la mu am wax dëgg yàlla ñu ànd seeg mbégte metti na métti wut ndax lépp taw feex la ndax lii rek ndam la te bokk si fondation ànd jëfal Serigne Sall li may faral di wax rek rek mbégte mu yaatoo yaatu la man dama ko def tiitar ndaxte dañoo amul lu dul fondation bi kon na buñ la nee kaay jëfal Serigne Saliou rek sas nañ la lu rëy kon ak nii soxna yi defee nii di jàng xasaayit yi góor yàlla yi di jàng xasaayit yi wax dëgg yàlla mbégte la ñu ngi fi wàcc alxuraan ñu ngi ñoom ñëpp daal ñu ngi góor góorlu ni bés bi war a demee lépp daanaka dara manqué wu si ñi si waa cuisine ñu ngi ci waañ ba waa organisation ñu ngi organiser ñun daal wax dëgg yàlla mbégte mu yaato yaatu lañ si am daal wax dëgg yàlla. waaw macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax soxna Ngoné euh, su ko defee rek ñu euh, jox leen dig daje si kanam incha allah. la jàkkaarloo nii moo nekk jëwriñ organisation ak ki yor waañ ak ki yor lépp luy wàllu serviteur dañuy doole nag ci ki yor wàllu organisation bi bu baax yow jox sa wàccuwaay yow jox sa baax a baax ci teewaay bi nga xam ne wan fondation Ande ba Serigne Saliou Mbacke ñu ngi liggéey fii ci kër Serigne Saliou war a ziar Serigne Cheikh. waaw la seen liggéey tey ndax mu mel ni waaj nañ ko ci diir bu yàgg. ba ba no ba tey ñu ngi wàcc ñu ngi def ay réunion waaye ñu bëgg a xam tey loolu ngeen daan tontu yëpp tey lan ana lan mooy taxawaayam ci bis bi. wax dëgg yàlla waa organisation moom yaakaar nañu ko yaakaar nañu ko wàcc yaakaar nañu ko wàcc ay weer teewul nag bàyyiwuñu benn yoon ñoo ngi ci suñuy yitte ñoo ngi ci lépp ñoo ngi ci lépp loo xam ne nii liggéey bi laaj na ko rek ñoo ngi ci muy yar a teggin bi nga xam ne moom la sëñ bi gën a soxla lépp ñoo ngi koy jox suñu wàccuwaay wax dëgg yàlla ndax liggéey bi suñu tuun yi moom yaakaar naa li ci des lépp loo xam ne nii tawféex nag ñoo ngi koy def surtout yar bi nga xam ne ak teggin bi nga xam ne sëñ bi jàngale nañu ko lépp ñoo ngi koy wane ñoo ngi koy jëfee dëgg yàlla organisation bi moom macha allah lépp tawféex na. moo yor wàllu waañ bi ñu ngi waaw onze billah bisimilah barke Serigne Sali asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu di leen ziar wér wér. waaw ñu bëggoon xam ana tey lan ngeen taxawaay ci wàllu waañ bi ak seen organisation bi nan demee. waaw di gën a sant bi rek di gën a am mu rëy ci bi nga xamante ni am nañ ak yar ak dal ak teggin yoo xamante ni ànd nañ ko waa son yëpp muy son international ñu ànd ko ñoom yëpp ci bis bi di si gën a sant sañ ndax fi mu toll nii boo ñëwee dootoo xàmmee ki nga xamante ni dëkk na Louga wala Dakar wala ci daanaka ñëpp benn nañ dañoo boole xool yi di xàccandoo di dóorandoo di gën a sant sëriñ bi baax a baax ndax ñëpp ñu ngi ci liggéey bi taxawee ko ngir ni ko sëñ bi bëggee rek sant di ci gën sant sëriñ Saliou bu wér a wér a ay mbana yu bari ñu bëgg a xam ana ñaata waa waa cuisine ñaata mbana lañ taal ak nan la fa demee. waaw waa cuisine dañoo ñëw euh, fas yéene taal 15 mbana ngir mbokk jullit yëpp ak mbokk taalibe ñi nga xamante ne ñu ngi si biir fondation bi ñu ñëpp xéwlu ñi nga xamante ne ñu ngi si kër sëñ bi ngir di siyaari sëñ bi ak ñi sëñ bi moo leen tax a jóg rek ñëpp mën a xéwlu ba si barabu Sëriñ Saali bi nga xamante ne moo nekk si biir jumaa ji sax fas yéene nañ faa yóbbu mbana spécial boo xamante ne moo fay dem nga xam dañ ko toogal mban spécial boo xam ne sa biir barab ba la jëm loolu moom fas yéene nañ ko yéene. salaamaaleykum wa maa ngi siyaar bu baax waa fondation Ande Jëfal Serigne Saliou di membre boo xam ne nekk na ci fondation Ande Jëfal Serigne Saliou mu international di wax liggéey bi moom macha allah wax dëgg yàlla depuis boobu ba léegi ñu ngi koy xaar nag siyaar bi di booba léegi ñu koy xaar yàgg na mais yàlla suturaal nañu ba tey la ko yàlla dogal euh, bi mu ñëwee def nañ ci suñ kéemtulaay kàttan lépp loo xam ne si ne rek serviteur mi ngi ciy taxaw taxaw nañ ko matale nañ ko le lépp préparé nañ ko ba si suba ba léegi ñu ngi koy doxal comme niñ ko war a doxale si ngir jëmmi Serigne Saliou rek moo tax ñu ko doon ñu koy ba lépp loo xam ne si ne rek moom serviteur moom moom moom la wala joué mooy rôle am si kii bi rek ñi ngi ci ñu boole ko waa organisation ànd ko waa organisation bi yëpp mboolem koo xam ne si ne fi fi boo xool fii xame woo waa Dakar xame woo waa Mbour xame woo kenn léegi international lañ maanaam daal fondation ànd jëfu Sëriñ Saliou ñoo fi daje amul Dakar amul keneen ñu ñu boole ko ànd koog liggéey bu rafet bu jaaru yoon te lépp Sëriñ Saliou rek tax parce que boo xoolee fii da ngay gis ne dañu mel ni ñëpp a xamante wallahi ñu si bëri tey la ñuy doog gisante am na ñoo xam ne sax man xamuma leen mais bu si wala bokk si ay whatsapp ngeen di déggante tey ngeen di doog a gisee mais teewul bi ñu gisantee dafa mel ne maanaam tey la ñuy doog a euh, ay at la ñu gisante kon loolu Serigne Saliou rek moo ko mën a def si nit ñi kon ñu sant Serigne Saliou bu baax a baax a baax te te di ko gërëm te di ñaan yàlla def fondation bi jàmm def si tawfeex mbooleem soon yëpp nekk benn si barkeb Serigne Saliou jaajëf ñu ngi leen sant waaw su ko defee dañ leen di daal di ndax ñoom mu mel ni seen temps bariwul jërëjëf jëwriñ soxna yi organisation euh, si international bi yëpp muy soxna Maguette euh, Sarr soxna Maguette bu ko defee rek nga fàttali ñu tuuti rek ak euh, ni nga dundee bis bi tey jii ci international bi yëpp. salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi siyaar mbokki international bi yëpp di jox seen wàccuwaay wax dëgg fa yàlla bis bi moom dañ see am ndëgte ak contentement bu rëy rëy rëy wax fa dëgg yàlla ndaxte ñi nga xam si ne ñun ñun ñun ngay waa Touba dëgg fa yàlla gis nañ taxawaay ba ma sëkk ñi nga xam si ne tamit ñoo ñu fekk si gis nañ tamit taxawaay nañ suñu taxawaay si bis bi ñun ñëpp. wax dëgg fa yaay fii bi ñu fiy ñëw muy man di kii di kii kenn xamante wuñ ak sa morom sëriñ bi rek moo ñu boole tey jii ñoo ngi ni mel ni ku bokku ndey bokku baay baak sëriñ Touba dañoo nekk fayin boo xam ne si ne lii moom sëriñ Saliou kese moo ñu ko mën a defal keneen mënuñu ko defal ku dul sëriñ Saliou kon nag li nga xam si ne mooy mbégte bi tey jii ñu koy dund moom wax dëgg fa yàlla sedd na torop suñu xol moom suñu xol na guyu day ñaan yàlla rek ànd bi nii ñu gën mu gën a yokku ci baak sëriñ Touba baak sëriñ Touba essant yi nag ñu gën ñu ngi ñaan yàlla mu gën ñoo raxatal suñu xol ba nga xam ci xam ci ne ngi koy dund essant yi nii ñu gën ko dund ay ati ati at ñu dem ba fondation bi nii terrain général bi yëpp essant yi dem ba yokko yokko yokko ban yëg ko ba lépp li nga xam ci ne moom lañ ciy séentu ko yàlla defal si barke Sëriñ Tuubaa essant yi moom kontaan nañ suñu xol seet na guyi moom wax dëgg yàlla jërëjëf soxna ngi lay jaajëfal baax mu mel ni soxna su fekkee am loo ci dool rek nga dool ko bismillah waaw ñoo ngi ziar waa fondation bi di leen ah daanaka de soxna Maguette wax na lépp ñun moom ñooy représenté organisation Jaune Mbour waaye ñiñ fekk si tamit macha allah seen xool yaatu na yaatal nañu dañoo agsi rek ñu ne ñu macha allah liggéey baa ngi noonu yàlla nañu ko commencé ci bisimilah àggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin yàlla nangul suñu ziyaar suñu ziyaar yi nangu ñaan yi fi ñaan yëpp yàlla na ko yàlla nangu muy élèves yeeg euh, ñiy liggéey ak ñëpp ndaw ñeeg surtout ñun tey ku xool jotaay bi xam ne li Serigne Saliou rek moo ko man ndax ay ndaw lañ tamit di liggéeyal Serigne Saliou yàlla nañ ci def daal lu kawe suñu njort. jërëjëf euh, mbokk taalibe ñu ngi leen jaajëfal di leen joxaat dig daje ci kanam incha allah